merci beaucoup. Euh, je suis très heureux de, de, de, cette rencontre que nous avons eue avec le caucus, avec euh, ces femmes qui, depuis des années, militent, œuvrent et font le plaidoyer pour une meilleure participation des femmes dans l'activité ou la sphère politique. Euh, C'est une initiative heureuse que nous saluons, que nous avons suivie depuis de nombreuses années. Euh, il nous a été rappelé tout de suite Déjà en 2019, lorsque nous étions dans la coalition Sonko Président, nous avions également eu ce même exercice. Cette année, euh, nous les avons suivis depuis avec des acquis importants qu'elles ont pu pour faire avancer la cause des femmes dans l'espace politique. Mais qui fait avancer la cause des femmes fait avancer la démocratie tout court. pour la raison pour laquelle je voudrais les, les saluer et les remercier, les féliciter pour cette heureuse et les encourager à aller de l'avant pour encore plus de résultats et encore plus d'impact sur nos vies. Je parce que l'activité des femmes, les réalisations des femmes et leurs résultats positifs impactent positivement nos vies à, à nous tous. Euh, nous avons effectivement discuté de long à large de, leur, de leurs euh, engagements, de leurs euh, espaces de plaidoyer, de leurs propositions qui sont très très pertinentes sur la façon dont le gouvernement devrait s'y prendre. pour donner plus d'espace de réflexion, plus d'espace de participation, plus d'espace d'engagement euh, aux, aux, femmes. Nous sommes totalement en phase. Nous euh, avons montré à travers également les propositions que nous tenons et les différentes mesures plus prises et qui dans les prochains jours seront expliquées aux, aux et aux Sénégalais sur la façon dont on va faire avancer cette cause. Euh, évidemment, qui dit autonomisation euh, euh politique, qui dit euh, les femmes et l'engagement politique, qui dit meilleure participation des femmes, dit également euh, les femmes dans l'économie, les femmes dans la société de manière générale, les femmes comme actrices de la transformation de nos sociétés, de la transformation positive. Et comme un système où en ayant un résultat dans un domaine, elles en créent d'autres dans d'autres domaines. Et c'est pour cette raison que nous sommes Nous sommes très heureux, nous avons pris ces engagements-là, de les écouter, de les entendre et de nous approprier euh, de leurs propositions pour, euh, pour que le Sénégal en, en sorte euh, grandi et, et, victorieux. Nous avons eu de, de, de, formidables propositions qui sont, qui sont révolutionnaires, qui sont très fortes. Euh, ces propositions seront étudiées. Euh, vous savez que nous, nous sommes dans le cadre d'une coalition avec d'autres euh, partis et alliés. Nous allons travailler d'arrache-pied à faire en sorte que toutes ces propositions se reflètent dans euh, les programmes que nous portons et qu'elles soient matérialisées dans les meilleurs délais, Inch'Allah, dès que nous aurons euh, réussi, avec l'aide de l'action la, euh, euh des Sénégalais, à gagner cette élection présidentielle dans notre coalition et puis à appliquer rapidement ces propositions pour le bien-être des femmes sénégalaises. Une pouvez les engagements que vous avez pris à cet égard Voilà, je crois que les femmes tiennent beaucoup à cette, euh, à cette question du ticket, euh, ce ticket présidentiel qui revient inlassablement. Je crois que nul ne peut, euh, ne peut refuser une telle avancée. C'est une volonté très très forte euh, qui déjà a été euh, annoncée ou mise dans le corpus euh, législatif de ces dernières années. Il manque maintenant l'effectivité, la réalisation. C'est quelque chose que nous allons considérer avec énormément d'attention. avec la plus grande bienveillance dans l'optique de faire avancer cette cause qui est une cause importante. Lorsque les femmes, il y a quelques années, ont soulevé la question de la parité, beaucoup euh, se disaient que oui, ce n'est pas possible, c'est utopique. On a vu qu'il y a eu des acquis considérables au niveau de l'Assemblée nationale. Il y en a eu un peu au niveau des collectivités locales, c'est encore faible, mais c'est mieux que rien. Et c'est comme ça qu'il faudra avancer pour avoir encore d'autres réalisations et pourquoi pas ce ticket. Nous, en tout cas, nous nous trouvons l'idée extrêmement bonne parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à faire avancer. Et nous avons, nous, été plus loin pour dire qu'on peut envisager, au-delà de la parité dans les espaces de décision, comme l'Assemblée et les collectivités locales, euh, augmenter la présence des femmes dans toutes les structures de l'administration publique. Nous procéderons sans doute pour dire combien y en a-t-il de commissaires, combien y en a-t-il dans les douanes, dans l'armée, dans partout où l'administration publique est présente, les statistiques les effectifs qui comment augmenter progressivement ce nombre et atteindre un niveau significatif de présence des femmes dans l'activité de l'État de manière générale. Parce qu'une grande présence donne plus de facilité ou de, de, convivialité dans les relations entre les citoyens et leur État. Parce que lorsqu'on verra qu'il y a un équilibre entre les, les genres, et c'est cela que nous voulons mettre en, application. d'une di leen gërëm bu baax euh, tey nag dañu euh, dalal fii COCUS mooy kuréel bi nga xam ni ay jigéen ñoo ko ŋànk ànd ci sax ay ak seen quelque càmmiñ gis nañu loolu muy lu rafet itam ñu ñëw di seet candidat yëpp di waxtaan ak ñoom ngir fexe ba xool ndax candidat yooyu la ci programme yi nga xam ne moom lañu ñu ŋànk mbiru jigéen ñi jël nañ ko bu baax a baax en compte taxaw nañ ci am nañ ci ay gis-gis yu leer am nañ ci ay jéego yoo xam ne bëgg nañ ko cee dox euh, bu loolu weesoo ñu indi ñoom itam seen i seen i xalaat seen i bëgg-bëgg ak seen i proposition pour jox ko kandidaa yi wax leen ni lii la ñu bëgg ñu dugal ko ci seen programme pour mu gën a doxal réew mi gën a ñoŋal taxawaay bi nga xam ne moom la jigéen ñi am te muy taxawaay bu rafet a rafet ci espace politique bi waaye ñu gis ni boo ko boo ko xaymaa ci ci dayoo lu néew la waaye liggéey bi ñu ci def ñoom ci at yi gis nañ ni am na jéego yu am solo yu ci am yéen a ngi fàttaliku loi sur la parité ñoom ñi ñoo ko xeexoon ba indi ko ba mu nekk tey loi nit ñi di ko appliqué gis ngeen ni góor góorlu nañu ba ci maire yi ak am na jigéen ñu bari ñoo xam ne nekk nañ meer donte néew bi tuuti na te euh, war nañu ko war nañ koo gën a yokk loolu itam waxtaan nañ ci euh, ba waxtaan nañu ci li nga xam ne moom itam lu leen ñor la mu di ñoom li ñu tuddee le ticket maanaam góor ak jigéen pour bu ñuy ànd ci yor réew mi nga xam ne dañuy am taxawaay yem ci loolu mën koo mën koo doxal loolu nag ñu jàpp ni xalaat yu rafet la xalaat yu révolutionnaire la yu évoluer la te lu évoluer cause u jigéen ci démocratie dafay évoluer réew mi yëpp donc ñëpp ci am njëriñ pour que loolu ñu jëmmal ko euh, li ci des rek mooy nokka la ñuy taxawee ba daal di koy jëfee maanaam daf ci am ay xalaat yoo xam ne ñoom ñii danañ ci bokk ñëpp xool lan moo ci gën bu fekkee yéene ji am na sur le plan politique xam nga dañuy wax souvent volonté politique am na ku ma ko fàttali sax ni Sénégal kenn ëpp ko volonté politique parce que fu ñu waxee convention rek mu daw signé ko waaye bu ñu ñëwee dañuy gis ni dara duñ ko ci jëfe donc ci gannaaw volonté politique am na engagement yu war a am pour que ñu réaliser mbir yi loolu nag danañ ci ñaax du rek ñun mais képp koo xam ne nii candidat nga war nañ la cee woo ñaax la ci pour nga def ko ñun nag dañu bokk ci kuréel boo xam ni coalition la alliance boo xam nañ ko bokk ak suñu mbokk Ousmane Sonko bokk ko ak Bassirou Diomaye Faye ñi nga xam ni yàgg nañoo ànd ci wàllu politique dana ñu fexe ba déjà programme li ñu am ci wàllu jigéen ñi ci loolu lu ñoŋ la lu mucc ayib la waaye danañu fexe jël seen xalaat yi ngeen indi gën koo dëgëral gën ko cee yokk pour loolu gën a jëm kanam ngir bu ñu yàlla defalee ndam te ñu ngi ciy am yaakaar bu baax a baax ci le 25 février 2024 ñu mën a appliquer politique bu bees boo xam ne jigéeni Sénégal yëpp dinañ ci gis seen bopp. kon bu ngeen ci proposition yëpp. waaw am na yu bees yoo xam ne ba léegi sax dégg naa bu ñuy wax ci ci jigéen ñi seen liggéey ndax euh, euh, ndax 6 mois lay doon wala euh, maanaam congé maternité wax nañ ci xam ngeen loolu depuis 2019 gis ngeen ko ci coalition Sonko président mu ngi ci woon am na ñu ni baax na lool ndax ñu proposé nañ ko am na ñu ni mën nañ koo seetaat nu ñu koy doxalee pour mu bañ leen a lor xam nga léeg-léeg nga bëgg ko dimbali fekk mën naa indi gàllankoor ndax ñeneen mën nañ koo gisee neneen moo tax nag lu ñuy jàngat la defe ko ni mu gënee am na ko ni comme léegi travail à domicile télétravail am na loolu lépp mën nañ ko cee boole pour fexe ba jigéen ñi benn moment ñu ñu mën a dem liggéey benn moment ñu toog seen kër def télétravail mën a euh, toppatoo itam seen i doom adduna mooy dox bu ñu boolee numérique ak xalaat yu bees danañu fexe ba jigéen ñi dootuñu am benn jafe-jafe te loolu rek moo ciy jubluwaay bi loolu yaakaar naa bu ñu ci toogee rek danañ ci déggoo am ci ay yu wér su ko ne mën cee am sa njëriñ jërëjëf merci